jërëjëf man la Abdou Ndéné sal di directeur général SENTER di coordonnateur département bi pour le benn Bokk Yaakaar comme ni ñu ko doon defee rek chaque année vraiment bu gàmmu ñëwee nga xam ni nit ñi dañu soxla ay ndimbal ñu mobiliser quand trente tonnes de riz plus l' ensemble des denrées yu muy àndal pour permettre population bi ñu passé gàmmu bi dans les meilleures condition même bu fekkee euh, ren du ñu def gàmmu à cause de la pandémie ñëpp xam nañ ko. mais quand même dinañu dugal ci kër yi yëpp bis bés ndimbal ah loo xam ne dinañ ko mën a bu ñu amee mën bu ñu amee gan ah, ak yooyu tout ça mu faciliter leen gàmmu bi quoi ñu jaar ci ñu jaar ci def gàmmu bu baax quoi maa ngi nuyu bu baax suñu xalif sëñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla na fi yàgg di wér di ñaanal famille El Hadj Malick yëpp yàlla dafa leen jàmm dafa leen taw féex ah li ñu bëgg ci tarixa bi yëpp yàlla def ko di ñaanal aussi population Tivaouane bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di ñaanal jàmm di ñaanal Sénégal jàmm lii nag dañ ko def rek ci cadre dimbalante parce que dañu wax ni dimbalil sa bopp yàlla dimbali ba dimbali dimbalil sa moroom yàlla nungul la donc comme li ñu ko doon defee rek ku xam fii ku xam fii kër sa Mbaye Sall kër Magar Fara Sall xam ni lii yàgg nañ ko def yàgg nañ ko def vraiment mënuñu compter sax ay années ñu ko def ça fait au moins plus de trente ans lii ñu koy def chaque gàmmu di ko def di togg di joxe ay denrées de première nécessité di joxe quand ay tapis ay ay ay ay ay ay ay bassin yooyu yëpp ñu yóbbu ko ci daara yi parce que ku ñëw bu fekkee am na gàmmu di nga soxla tapis di nga soxla bassin loolu lépp dañ ko def rek dans le cadre dimbali population bi ah mu dépassé nag cadre politique parce que dañu def recensement ñi ko gën a soxla. ñooñu lañ koy ñooñu lañ koy jox vraiment di gërëm ñëpp di euh, sant responsable politique yëpp ñu nga xam ne ñu ngi ànd ak man muy du Père Modou Marème Aydara euh, Khady Diop ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ne moom ñoo mobiliser dimbali ñu ci ba ñu mën a quand même mobiliser tous ces euh, denrées ak yëpp yi nga xam ne dañ koy soxla ci quand même gàmmu gi pour teg ko jox ko vraiment population bi di sant ñëpp di ñaanal ñëpp vraiment non évaluation bi moom financièrement dis na mais yàlla baax na dañuy ñaan rek yàlla dañu ko may ah parce que xam nga si le rendez di du donner et du recevoir mm. ah, donc vraiment yàlla baax na comme ni ñu ko doon defee rek 30 tonnes de riz dañu mobiliser donc vraiment mooy loo xam ni rek dañuy ñaan yàlla may la ko waaw parce que tant que yàlla mi ñu koy may moom dañ koy def su famille dañuy def un recensement bu bëree bëri bëri bëri c'est à peu près 500 familles lañuy lañuy la ñuy compter ni que que vraiment ñu def ci un recensement avec les chefs de quartier avec nu gox yi ak yooyu yëpp ñu xool à peu près ñëpp ñu ko war a am ñu am ko mais am nañ benn quota bu nga xam ne aussi suñu responsable politique yi dañ leen di jox aussi vraiment ñoom it aussi ñu ñu séddale ko quoi pour militants yi mais la plus grosse partie dafa dem ci nécessité yi non langue politique bi moom vraiment na ñëpp def euh, ñu ñëpp nañ ñaan ñu dem ci élection yi ku mën sa moroom gagné après ñu def plaat ci leneen parce que politique benn benn temps rek la ah du xeex du xuloo mais vraiment xool population bi ne ku leen gënal ñu tànn ah yàlla na fekk tànn bi doon lu gën ci Tivaouane doon ci gën ci Sénégal man loolu rek laay ñaan koo xam ni que violence bi matu ko parce que violence bi du tax ñu voteel la parce que population bi quand même une population mûre population bi nga xam ni léegi nii kii na taxaw na léegi ñoom ñëpp vraiment dinañ leen dinañ leen euh, gën a sensibiliser maa ngi ñaan aussi responsable politique yëpp ñu sensibiliser si seen patron wax ni que fii du guerre c'est une compétition politique da ngay teg sa programme wax population bi lii laa bëgg lii laa defagul lii laa bëgg a def ñu xool bu leen doyee ñu daal lay voter donc loolu soxlawul guerre soxlawul xasante soxlawul def dara parce que vraiment ñun ñëpp ay mbokk lañu lii day passé loo xam ne day passé nag bu ci ñaaw donc vraiment maa ngi ñaan ñëpp ñu nekk ci jàmm pour Tivaouane moom ñun ñëpp ay mbokk lañu ñu fi nekk candidat ay mbokk lañu dinañ dem ci élection yeeg jàmm ak salaam ki gën ci candidat yi yàlla na ko vraiment yàlla jox maire bi ki gën ci département bi aussi yàlla na ko yàlla jox xam naa ni man moom maa gën département bi kon yàlla dina ma ko jox mais mais maire bi aussi waa benn Bokk Yaakaar ñoo ci gën ah muy le maire bi fi nekk actuel muy Diagne Sy aussi dina ko jox loolu moom loolu moom wóor na. <laughs> donc li des waaw waaye sama candidature dama koy maintenir parce que man bul fàtte ni 2014 man maa ne woon tête de liste département tête de liste commune ñaar ñëpp donc ñaar ñi fi nekk yëpp maa leen tegoon donc ambition bi ma amoon 2014 moom laa am ba léegi. donc il faut mu dem diri ci benn vraiment parce que quand même dama war a am un poste politique hmm. waaw bu dul maire du conseil départemental c'est